يو خم جانغ نجي لخدر يبي أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يصلح به فرد عينه برم لخدر يدفن مكلف سنين مكلف ما يكون مجور مو خم كجور ولا كجيجين مجور سوكو خاتيا بدف xam nga lu la war sa ak sa borom moy nga gëm yalla gëm gu wër am tawhid bu lar ci sa xol sa ak sa borom dara bañ ti dara bañ ti dara bañ ti nga fas ci sa xol ni lu am yalla la lolu moy tasxihu imanihi nga wéral sa gëm yalla lolu nak lu jafé la parce que dañu tollu jamono bo xamni ñi ñiy dañu bari bare surtout nak ñi ñi tuddé ay nit daara dañ mëna titelaté tiitalaate mëna mën a mëna naxaté pour lan pour lek sa alalu àdduna te yàlla kat waxon na leen te ñum xam nañ ko wala tashru bi ayati llahi thamanan qalilan ndax ma indakum yanfadu wa ma inda llahi baaxin yàlla ne poyetu àdduna bu mu leen jaral àllaaxira ndax àdduna li fi nekk lépp maa fi indi te luy jeex laa fi indi la dul jeex maa pour yomal qiyaam kon nit dafa war a wéral gëm yàllaam soo wéralee sa gëm yàlla ba pare nag suma maarifatu bi yuslihu bihi ay aynihi nga jàng nag nooy jaamoo yàlla te dafa yomb jàng nooy jaamoo yàlla dafa yomb waxuñu la nga jàng ba nekk borom xam-xam mel na oustaz Mouhamadine Mansour Fall déedéet caru ko mel ni oustaz Modou Fall mel ni oustaz Pape Anne mën nga bañ mel ni ñooñu déedéet waaye nga xam nag say farata yow tamit xam sa farata mooy nooy jaamoo yàlla nga xam ko nag loolu farata la loolu tax nit war a bàyyi xel digganteem ak boroomam loo tax Mansour gis nga nit ki muy jaamoo yàlla loolu la war a njëkk a jàng xam faratay sangu farata ñaata la moo ne barewul ñeent la xam faratay njàpp ñaata la moo ne barewul juróom-ñaar la xam faratey julli ñaata la moo ne barewul boo demee lax dar yi fukk ak ñeent wala fukk ak juróom wala fukk ak juróom benn du ko paase yooyu nit daf ko war a xam masalan tey faratay njàpp juróom-ñaar rek la bu njëkk ba mooy yéene ndax yonent bi nee na jëf yëpp mi ngi fasoo ci yéene innamal amalu binniyaat yéene gannaaw yéene sëlmu mooy raxas gi ngay raxas sa xar kanam gannaaw raxas sa xar kanam raxas bi ngay raxas sa loxo commencé ci bu ndeyjoor bi teg bu càmmoñ ba la tàmbalee ca baaraam ya ba ca conco la boobu mooy bu ñetteel bi bu ñeenteel bi mooy masaa bi ngay masaa sa bopp deb bi kooku farata la waaye dellusi bi sunna la du juromel bi moy raxas bi ngay raxas sa ñaari tank ba ca dojor ya bu jurom benel bi moy gawantu bi ngay gawantu japp joge fa bu jurom ñaarel bi moy bomb bi ngay bomb cër yeb Mansour ni yomb na jurom ñaara ngok moy faratee japp su ko defé loolu jullit bu nek def ko wara xam su ëllëgee nga jang faratey sangu bu ëllëgee nga jang faratey julli bu ëllëgee nga jàngale leen jàngale leen bu yàggee rek nga nekk borom xam-xam bu kenn dootul